salaamaaleykum mbokku internet yi mbokku abonné King Ouse et Ngary TV ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ñu ñëw ak yéen ci xibaar yu mujj dinañ leen indil ñaari xibaar ndax fële ca France am na bomb bu fay waaj a am ci biiru kan Kylian Mbappé ak kan doomu Sénégal bi di Pape Makhtar Sarr ca France léegi léegi ci yaatal gi. ñu ñëw ak yéen ci yaatal gi ñu dooree ko ci doomu Sénégal bi di Pape maxtar Sarr nekk fële ci FC Metz di fa def ay jaloore moom 2020 la jógee fii ci Sénégal jël avion naaw dem ca France équipe bii ñu naan FC Metz ma ngi fay def nag ay jaloore saison bii ñu génn doxal na bu baax a baax loolee tax sax na loole sax tax na doomu Sidaat Sarr bi moom kat ña koy bëgg ca Angleterre bari nañu. ndax président wu Metz bi jóge na ca France dem Angleterre loole nag ngir ubbi waxtaan ci club yi may waaj lim bu ci mel ni Chelsea ak mën Manchester City ak mën sa Manchester United waxtaan wa nag am na yaatu na nag waaye kii di président wu Metz nee na doomu Sénégal bii lenn laa ci bëgg ku ko bëgg dangay ñëw waxaale ak man ñeent fukki million nag moom ku ko am na nga ñëw muy 40 millions d'euros wala ku am fanweeri million di trente millions d'euros na nga ñëw ñu waxtaan waaye nag su ma la ko jaayee dafay am ay sart yu may teg ak yow muy lan gone gi xale la danga ma koy bàyyil fii mu def ak man saison deux mille vingt et un mille vingt deux ba noppi gars yi sax foofu laaj dina fi samp lan ngeen di xelal Pape Makhtar Sarr ndax CAN deux mille vingt deux mu ngi ñëw ak éliminatoire mondial deux mille vingt deux da ngeen koy xelal mu toog ca Metz ngir mu mën a am temps de jeu bi mu bëgg wala dangeen koy xelal équipe yu mag yooyu ku ko ci bëgg rek mu takk daal yi dem fa. loolee ndax moo gën ci moom ak Sénégal laaj bu samp la waaye daal ci fàttali président wu FC Metz nee na gone gi ku ko jënd duma la ko jox. da nga ma koy bàyyee mu futbal ak man benn saison loolee mooy option yi nga xamante ni moom laa teg. kon nag doomu Sénégal bi di Pape Makhtar Sarr moom ma ngay doxalte ñaanal leen ko ci fàttali papaam coach la Sidaat Sarr moo yor AS Ndiambour kon nag gone gi xam na football ndax ku sa baay di coach rek. yow mii di nga xam fooy teg sa tànk ñu ñëw ci daj dëpp gi muy kan mbiru Kylian Mbappé Kylian Mbappé mbiram ma ngay wéy di jur coow nag fële ca Paris li ko waral mooy kii di Mbappé dafa fas yéene suba jàkkaarloo ak Nasser El fii moom mooy président wu Paris saint ak kan kii di Leonardo di directeur sportif ba ci fàttaliku dëgër bopp la moom moomu di Leonardo waaye nag bit ba lenn képp la la ñuy waxtaanee moo di lan mbiru Kylian Mbappé Kylian Mbappé dafa bëgg diggante Real de Madrid ak Paris waxtaan wa mën a ubbeeku ngir ñu mën a waxtaan mu mën a def transfert dem ca réyal de Madrid loolee tax na Paris bëgg daje suba ak Kylian Mbappé Mbappé nag nee na li waral waxtaan bi sabab ko moo di lenn képp la Paris fii def naa fi ay jaloore am na fu ma leen def ci sama xol loole nag tax na ma bëgg ñu waxtaan ngir buntu mën a am waa Real de Madrid mën a dugg ubbi waxtaan wi ñu mën ma transférer ma dem foofe ci fàttali mbappe gars yi naxee nañ ko nu ne pour mu xaatimaat beneen contrat mu lànk loolee lépp waaye ñii di waa Real de Madrid ña nga toog ne nemm fi ñu ne nemm rek toog li ko waral mooy diggante Real ak Paris dafa neex ratax na lool ay xarit lañu te Real bëggul forcer dugg muy jur ay coow wala ay jafe-jafe loolee tax Real ne nemm rek toog moo tax Kylian Mbappé suba dafa bëgg a toog ak président ba di Nasser El Khelaïfi ak DS ba directeur exécutif ba di Leonardo ngir ñu ubbi waxtaan Kylian Mbappé mën a def transfert am kon nag gars foofu la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba suba incha